ci c'est sûr que bon lu ñu wax moom mooy que état bi mooy le premier responsable que que moom hmm. moo war a am volonté politique ferme euh, avant ngay jël décider mu am décision mu am concertation euh, je crois que état bi am na la grosse responsabilité maintenant pour euh, aussi bon il un problème quand même de de conscience citoyenne man man je suis euh, par un esprit euh, un certain esprit sénégalais c'est-à-dire que gis nga le sénégalais dafa bugg jaar ci kaw moromam. Mhm. waaw. Mhm. Mhm. su ñu xamee ne que oto amul. ils sont prêts à t'imposer un prix double prix trois de prix par le prix multiplié par par trois. on est méchant entre nous. oui. si xam nga lu nga wax nii lan moo tax moom importance. lan moo tax ma dama koy dëggal rek. xam nga fii Sénégal la ñuy wax sax nga ne damay jaay ceeb parce que parce que xew bi euh, par exemple fête jot na damay yokk prix yi muy transport muy lu mu mën a doon nañ koy mais doyen boo génnee Ndakaar boo génnee Sénégal dem dans la sous-région gis nga sénégalais yi coono ñuy daj foofu yeneen sénégalais ñoo leen koy teg. ñoo leen di jaay ñooy wax ne xoolal Birama mii di ñëw kii nii di ñëw tel secteur la bokk c'est c'est musicien wala c'est un truc c'est leen lii ak lii bu ko defee ñuy làkkanteeg ñoom il faut aller vers Rosso doyen nga xool sénégalais yi li ñuy defante entre ñun. waaw juste pour pour pour dëggal li. non non moi par sax parce que bon lu commerçant su xamee ne que affaire bi euh, marchandise bi amul ci. li ñëpp soxla moom rek moo ko yor. bilaay il te il te tue. daf koy jaay deux fois le prix trois fois le prix et après mu ne la moom jullit la jaar na fi dugg na fële fekk ba ita rey na la ba pare. rey na la c'est la même chose pour le transport. mm pour la location la location c'est bon, pareil voilà. Sénégalais mm. ils ils on, parle des prix de, de plusieurs mm. mais c'est que nous on ne respecte pas les prix c'est-à-dire à la limite ñun on accepte la règle comme quoi il n'y a pas de prix c'est suivant la tête du client waaw <laughs> waaw c'est ah. suivant la tête du client et ça euh, je pense que euh, les citoyens quand même war nañu jóg euh, ci loolu d'abord diggante sénégalais ak sénégalais mais aussi pourquoi pas aller dénoncer ah y a des structures pour dénoncer euh, ki nga xam ne. ah mooy ñi doon laaj salaire. comme <laughs> ñi doon laaj salaire yi pour. <laughs> pour dénoncer. pour pour y a des pour dénoncer man ñi nga xam ne ñoom la war a bu ñu demee dénoncer leen te benn instant ñuy laaj ne joxuñu leen moyen quoi. ñu war a dénoncer la war a jox non non ñoom ñi nga xam ne. boo demee ñoom ñoo lay kii waa kii. mooy waa location bi. <laughs> non c'est-à-dire que moi ñoom ñoo ñoom ñoo ñu war a taxaw. moo tax man cette réunion là sax daf may xaw a day xaw a jaaxal jaxase sama bopp. parce que ce sont les mêmes personnes qu'on va retrouver encore ñu ñëwaat toog ne dañuy défendre la population ñu toogaat encore ba buñ bëggee défendre il faut nga am carte il faut nga def lii il faut nga def lii aussi nag. doyen ba pare laaj locaux. ñuy laaj hmm? ak ay ak ay moyens. mais mais prends par exemple tu tu me parlais tout Ils s'affossent complètement les règles du jeu. C'est la même chose pour le, le commerçant, c'est la même chose pour le chauffeur. Donc, je pense que responsabilité individuelle am na ci. Mhm. que li nga mhm. xam ni lii jaaduwul que sénégalais bu ko jaar ci kaw beneen sénégalais. ak manque de patriotisme. manque de patriotisme c'est c'est ça mooy lii la ñu tëral man dama ko war a respecter su ma wéeteeg su ma suñ ma gisee ñu ma gisul dama war a respecter les normes. loolu aussi. Euh, doole de doole le patriotisme là c'est de dire que le citoyen bah, il faut que mu jar la dénoncer. waay. Hmm. c'est-à-dire dafay rey ñëpp. Hmm. ba rey économie bi rey organisation bi ba si on n'est pas patriote on subit. Hmm. je pense qu'il y a un esprit patriotique que que soo demee dénoncer c'est pour sauver. ta ta population sauver ton état sauver l'état de droit. xam nga dénonciation fan lay amee sens parce que on parle de patriotisme mais lorsqu'on est étranger dans un pays on n'est pas on est patriote que chez soi. ki jógee réewam ñëw fii am fi ay biens immobiliers kooku lijjantiwul li état bi di doxal. pour le bien. de ses de ses de ses mandants. loolu moom li muy lijjanti mooy amasser immense euh, le maximum pour mën koy delloo réewam. kooku li ngay imposer donc foofu la dénonciation di amee njariñ mais fan nga koy dénoncer. fan nga koy dénoncer tey je vous donne un exemple boo amoon cambriolage sa biir kër sa biir kër ñu ni la police lan la 17 sapeur 18 mën nga woote 4 heures du matin ba 18 heures le lendemain doo dégg ku la ne allo. dëgg la waaw ah, mais écoutez kon fan ngay dénoncer doyen. bu dee fa ngay dénoncer da nga war a jël paas yéeg wàcc yéeg wàcc yéegaat wàcc dem ba foofu xamoo ndegam ubbi nañu wala ubbi wuñu xamoo koo fay fekk ak nan la lay accueillir xam nga la ko jaral au finish donc ah, bala nga naan naam ne fa avant de mettre euh, il faut pas mettre les charrues avant les loo xamante ni mooy jiitu à chaque fois da am na leneen lu ci nekk aussi ci côté location bi doyen moi je vois de plus en plus bu ñu defee annoncé ak yooyu on te étranger la ñuy loué waaw mais am na fi ay sénégalais ñoo koy def. sénégalais yi nga xam ne en matière de location am na fi ci réew mi. étranger la ñuy loué. oui. kon dëkk bi ñun bu yàgg ñun ñun amuñu benn ñun ñun en fait ñun benn droit. en fait du ci feeñ moom du ci feeñ de le bailleur du ci feeñ. du ci feeñ day wut ay courtier ni leen ay étudiants étranger laa bëgg loué léegi yow soo ñëwee bu dee courtier bi da ngeen doon wax au téléphone ba mu yaakaar ne étranger nga boo leen demee ba jàkkaarloo ba mu xam ni kii may waxal sénégalais comme man mu wut benn prétexte ni ah non malheureusement finalement nee nañ ma néeg bi jël nañ ko wala nee nañ ma appartement bi jël nañ ko fekk borom kër gi moo exiger ni bëggul louer luy sénégalais li mu bëgg mooy étranger te man lu wax ak naa ay bailleur lan lañ ma wax bu dee étranger yi moo gën a simple parce que des fois dañ lay fay 6 mois en avance Ah. wala bu dee étranger bu dee étudiants yi seen parent yi ñoo leen di fayal foofu y' a pas de masla ni de négociation. Mm-hmm. dañ lay yónnee des fois six mois tu es pour quelque temps et cetera et cetera te bu dee sénégalais bi des fois c' le masla ah sëñ jàppale ma fayee koo guma jàppale ma dama amoon ordonnance jàppale ma tabaski lañ génn. Mm-hmm. masla boobu nag moo tax ñu bëgg di jëflanteeg les étrangers nee nañ nee nañu mais loolu lépp lan la du manque de patriotisme. non manque de patriotisme la bokk mais ñun aussi on n'est lu Sénégalais n'est pas assez protégé ci fi ñu dëkk ci suñu territoire loolu ça doit changer. mais loolu dëgg pour man ça doit changer doyen. non ma ma je suis totalement d'accord c'est-à-dire que euh, état état bi ci boppam euh, jógul ci protéger les droits du citoyen. quand même il ni ñuy protéger ñi nga xam ne ñu ngi ci nguur. Mm. mais am am amul amul esprit boobu pour les citoyens. oui. ministre bi député bi DG bi bah ils ont un minimum de sécurité. Oui, bien sûr. mais le citoyen il est laissé à lui-même. Mm-hmm. que état bi euh, day intervenir que quand c'est catastrophique. Mm-hmm. bah ce qui fait que euh, lu ñu doon wax sànq les prix là c'est vrai que c'est mm-hmm. l'état qui doit être rigide. c'est-à-dire j'ai pris telle décision mais je l'applique avec un, un système de suivi. bon loolu défaillance état bi la maintenant ñun. en tant que société il y a des défaillances individuelle mmh. et collective mmh. euh, suñu défaillance bi mooy que euh, ñuy gis ñëpp lii jaaduwul mmh. ñëpp teg seen bët mais personne n'en parce que coloré parce que tu veux pas aller euh, bëggoo dem ci yoon parce que parce que parce que parce que tout le monde démissionne et ça se retourne contre nous Euh, et je crois que euh, éveil conscience citoyenne bi defe naa pour man yaa ngi doon jël tout à l'heure les locations là mais c'est parce que les Sénégalais sont trian entre eux mm-hmm. bah ils respectent pas leur engagement mm-hmm. euh, le su may investir je préfère celui qui est solvable mm-hmm. que nga xam ne mën naa ko dàq saa yu ma neexee parce que c'est un étranger <laughs> je crois que là, il y problème euh, de conscience citoyenne mmh. euh, et aussi une conscience maintenant des, des, des gens quand ñu am moyen parce que ça aussi c'est vrai am na ñi nga xam ne am nañu seen moyen am nañu oto wala am nañu kër wala am na seen yoon nekku ci condition de vie de de de mhm. du locataire ou du passager. ñoom la ñu am lu ñu am yow tu restes dans tes problèmes. je crois que aussi ñu am euh, alal euh, war nañu. am une conscience patriotique